aywa euh, sujet bi ñu nekkoon génn ñu ko de sauf que dañoo euh, parenthèse woon ci parking bi tëjaan nañ ko ndànk dellu si ci <laughs> Covid 19 docteur euh, Assane Diop président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal la ñuy dalal Cheikh. waaw ñu dalal ko gërëm ko ci disponibilité bi moom docteur Baye itam ñu fekk suñu fii ci plateau bi ngir ñu waxtaanee ba léegi mbas mi. Mm-hmm. parce que ñoom pharmaciens yi dañ cee joué bu am solo ndax surtout cas fii mu toll nii li naan prise en Euh, yéen borom xam-xam yi ne ngeen du socc ku ciy testé tamit lu ci bëri da ngay positif te yéen jaay garab yi moo taxoon ñu bëgg xam. keroog vendredi def nañ fi reportage fii ci rédaction bi gis nañ tamit tey la une de l' observateur ñëwaat comment les gens ont pris d' assaut les officines de pharmacie yi nga xamante yéen yéen a koy jiite. bëggoon nañ ñëw sa expérience parce que yaa ngi ak sa pharmacie fële ca Médina li ngeen di dundee yéen contexte bi situation bi ni mm-hmm. waaw euh, jërëjëf ci ci laaj bi encore une fois jërëjëf sa bi li ñuy dund actuellement c' est inédit. c'est-à-dire euh, man yàlla def na deux 97 la génn par euh, commencé ubbi def pharmacie 2010 parce que avant boobu def naa hôpital mais mas ñu ko gis mas ñu ko gis parce que dañ daan euh, li am léegi ci demande ak affluence mhm. masul am masul am li ko indi xam nañ ko mbas bi la mhm. et léeg ñi ñëw essentiel bi si ñi lay jox yëpp boo ko xoolee techniquement scientifiquement mënuñu wax mbas bi la parce que boo waxee ñu la defu leen test. Mhm. mais pour man aussi il faut ñu dem de delà def ngeen test wala defu leen test. Mhm. c' est question de de de de de de tout faire d' abord avant ñuy wax sax maladie bi de tout fair pour wàññi contamination bi entre les gens. Mhm. ba tax na bépp cas boo am suspect war nga si mën a war nga mën a orienter nit ki expliquer ko nu mu war a def bis bu ne loolu lañ leen di wax boo eggee sa kër. xam nga moom la wala du moom. Mm. da raxasu foo toll. defal distanciation del sol masque et cetera première chose ça mm. day ñëw si euh, partie prévention bi. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy au moins prendre en charge li nga xam ne mën nañu ko. Mm-hmm. que nit ki dina ne yëgatuma dara sama yaram bépp day metti et cetera. amatuma gu li nga xam ne amatuma gu. Mm-hmm. li ñuy dal souvent suñu mbokk jigéen ñi lu ñu wax su may togg sax. munuma saf du saf du ma bu may mas ma xam li may mm-hmm. mas lu mu saf mm-hmm. donc cas yooyu mënoo ko am après nga ni non euh, voilà du kii si ta donc ñu ngi jéem def lépp pour ñun aussi apporter suñu contribution mm-hmm. ci euh, liggéey bi mais encore une fois ma dama jàpp ni liggéey bi du traité rek liggéey bi c'est en amont et c'est la où ça vraiment ça pêche mais vraiment pour répondre question demande bi bëri na Euh, et puis beneen affaire bi ci am mooy am na garab yi nga xam ne sax dañ ko doon euh, aar laa bëgg wax. Mhm. parce que ay yu am doole la muy antibiotiques yi nga xam ne presque ñoo ñu dese woon pour faire face yenn feebar yu yenn infection yu metti yi euh, mooy levofloxacine mooy azithromycine. Mhm. mais tey muy en terme de prescription muy en de demande liñ ci jobs da jéggi na dayo et ragal naa ne nag bu ñu eggalee nii. xëy na à terme dina am ay ay ay résistance parce que utilisation bi defuñu ko dans de bonnes conditions. Mm-hmm. mais nag aussi choix day am léegi entre ay euh, euh, euh, résistance bu war a am ci at yi di ñëw ak malaad yi taxaw maladie bi nga xam ne mën na lor doomu aadama. Mm-hmm. ban choix ngay def donc choix bi mooy chaque fois ñu yaakaar ne. war nañ ko mën a jox nit ki pour jàppale ko si wér-gu-yaramam pharmacien yi dañ ko koy jox. sans ordonnance am day ay mel garab yoo xam ne war leen koo jaay sans kii ci ordonnance mais nit ñi bu ñëwee ngeen jox leen ko. du ñëpp. moo tax ma ne il faut ñu def tri parce que nag da ngay mën a euh, ànd ak sa contexte koo ni demal hôpital du dem. Mm-hmm. wala bu demee aussi mënatuñ ko jël wax nañ ko léegi. les dans dans cas de figure aussi pharmacien bi aussi xam na parce que. pendant bi ñu koy formé ci six ans yi jàngal nañ ko sémiologie mhm. jàngal nañ ko un peu de physiologie et tout mhm. mën na xam dans quel cas il faut donner mhm. parce que il faut toujours nga peser le rapport bénéfice risque tout à suñ ko ko joxulee lan lay risqué suñ ko ko joxee aussi ban bénéfice am ak risque bi ban la boo defee faut vous convoquer l'éthique nga joxe waaw ça au-delà de l'éthique c'est vrai c'est il faut on convoque l'éthique parce que xale bu xale bu ndaw tamit bu ñëw wala benn photo ah mun na ko jox garab sur la base photo. Mhm. mais mag bu ñëw expliquer la man voilà voilà ma situation. Mhm. am na sax ñu naan ma dem naa ba hôpital mais dañu ma refoulé parce que nag tey jii kiy doxal boppam ñëw sol masque ma ni dama sentiruma dara wala loolu médecin yi tal nañu yeneen cas yu gën a critique mhm. que cas boobu ñu ngi jéem daal fexe lu ñu mën pour garab yi disponible ñu jox ko ñun ko war a jox mais tout temps ñu bàyyi xel tamit nag si les risques yi war a am demain non seulement sur la santé des malades yi koy jël. mais également sur les risques de résistance ak euh, même de disponibilité à terme. mais docteur docteur euh, euh, à ce dem ba am rupture. ragal loolu loolu laa doon wax léegi ragal naa kanak et heureusement heureusement ñu ngi ci waxtaan parce que on a aussi une direction de la pharmacie qui veille à la régulation. Mm-hmm. mais ragal naa ni nag dinañ dem rupture. parce que prévision yi ñu defoon yëpp aujourd'hui c'est faussé. c'est faussé waay. mais prévision bu ñu defoon. Mm-hmm. di antibiotique groupe boobu may wax léegi azithromycine levofloxacine muy vitamine C. Mhm, di am zinc. voilà mhm. ah, ñu ngi dem ci nawet bi ak. exactement. Mhm. et c' est c' est vraiment moom laa wax sax quand je parlais de logistique. et de technicien. Euh, dafay dem au delà même de la le professionnel de santé c' dire que ñun fi ñu invité aujourd'hui nos autorités mooy encore une fois ñu am une approche proactive ñu ñëpp wax nañ ko. mooy lan. parce que mënu moon d' accord Sénégal baisser les bras ñu xam ne on of monde bi lañ nekk. Mhm. te suñu dëkk yi dugg fi moo gën a yomb. Mhm. dugg yeneen dëkk yi. les gens ku nekk def effort di serrer di organiser di réajuster ñun ñu bàyyeeku. Mhm. xamoon nañu di dinañu daal parce que ku jàng tuuti épidémiologie mais mais Sénégal rek Dakar la ñuy toog man Médina laa nekk. des gens ay auto auto auto këriñ la ñuy dugg. traverser la frontière pour dugg dans notre pays. jaaruñu. aéroport. Mhm. jaar ñu fenn donc. pour ça on le sait on le sait ñàkkuñu ko xam boo boo amee situation bu mel noonu mënoo bàyyeeku ça veut dire quoi ça veut dire simplement effectivement on risque d'aller vers des ruptures mhm. léegi nag le problème de fond mooy dans ces états là dañ naan garab yi léegi on satisfait d'abord la demande locale balaa ñu koy génnee mhm. c'est-à-dire tey France y a des médicaments yoo xam ne balaa mu exporter day am autorisation parce que simplement les français wala les résidents mm-hmm. en France li ñu ci soxla am nañ ko ba pare ba mu wóor ñun nag ñu nekk situation xam ne produire tuñu dara presque ca veut dire quoi ça veut dire que faut ñu vraiment faut ñu anticiper mm-hmm. mais rupture bi ngay wax ni moom ak mm-hmm. nawet bii ñu jëm mois d'août bi peut être difficile. Mm-hmm. waaw mais docteur yéen. Mm-hmm. vous n'êtes pas de bon samaritain rek euh, vous avez une approche mercantile également parce que da ngeen di jaay ay garab di ko euh, di ko dundee également euh, est-ce que quelque part également les risque de l'automédication yéen a ngi koy bàyyi xel ci seen association bi parce que neen ñi bu nu dawee ñëw parce que dañuy jàmbat. peut-être dara lu leen metti ñu ñëw ñu wax leen da ngeen di jënd benn garab donné ngeen ñëw jaay ko ko loolu aussi am na risque les risques de l'automédication la est-ce que di ngeen ko waxtaan ak seen euh, membre risque la ñu ngi si waxtaan ak suñuy membre parce que tamit si suñu formation euh, point bu am solo la mm-hmm. pharmacien boo ko xoolee mooy ki nga xam ne toujours mi ngi naan garab bi est-ce que du indi problème loolu lay jiital mën naa l'industrie pharmaceutique boo demee industrie pharmaceutique tey partie euh, contrôle qualité moo lay ëppal si ngay ëpp gën def investissement. am na nag li nga xam ne moom foo ma nangu ko. mooy du ñëpp ñoo koy doxale ni mu ko waree saa aussi on doit on doit le reconnaître euh, am ñoo xam ne boo duggee fekk fa peut-être fekk ko fa pharmacien bi walla dara boo laajee euh, loolu laaj ñu jox la ko entre guillemets. Mm-hmm. man sama bopp du naa expérience avec un confrère. parce que nit dugg na sama pharmacie ma wax ak moom mu génn jëlul dara mu gis que benn yoon ñaar yoon parce que jour dafa ñëwoon stage jógee France. Mm. il me dit mais doc je ne pas d' parce que ñun li ñu jàngal en marketing mooy ku dugg war nga génnee dara war nga jaay dara au moins jaay ko benn sax CAC 1000. Mm-hmm. Mm-hmm. je dis non c' est pas comme ça. Mm-hmm. parce que pharmacie rek d' abord mu am dafa am refus de vente. garab bi waroo ko jël. parce que sa état nanguwu ko. wala aussi soxlawoo ko c' on est demal nga noppalu wala defal nii wala defal na mhm. ça ça vraiment ça fait partie ñu ngi ciy lu ñu mën mais nangu naa ni xëy na c'est pas fait de manière du ñëpp ñoo koy def ni mu ko waree dans un secteur boo xamante ni aussi libéral bëri na ci <laughs> tamit ñoo xamante ni tey xëy na dugg nañ ci yéen a koy yooyu tout le temps. Mm-hmm. préoccupation bi ngay am yow mën nañ ko bañ a am ñoom. effectivement seen yoon nekku ci. effectivement li ñu bëgg mooy écouler seen. écouler garab yi. Mm-hmm. pour atteindre benn standing de vie. moo tax aussi da ngeen am beneen responsabilité li gay wax. Mm-hmm. mooy tey jii aussi seen kuréel googu. ngeen nekk ci benn logique de communication et de sensibilisation. effectivement à grande échelle pour waxee les bonnes pratiques. wax ne tamit ku dem gis comportement bi xamal ne yaa ngi ci risque bu mag. Mm. effectivement parce que sinon on risque d' encourager aussi l' automédication. Mm. waaw te dosage actuellement actuellement automédication dafa am dafa dafa dafa mm-hmm. yokk bu baax. Mm-hmm. maintenant comme j'ai dit tout à li ko mën a expliquer xëy na mooy nit ñi amatuñu accès mënatuñu egg ci hôpital yi. mais nag ñun suñu rôle c' est vraiment de réguler. Mm. et de canaliser am ni nga xam ne waruñu. Mm-hmm. franchement et ku ko def aussi tegoo ko ci dara. Mm-hmm. parce que y a des kenn war ko jox nit quelle que soit la situation. Mm-hmm. quitte à ce que yow sa bopp nga accompagner ko mu gis un spécialiste wala un médecin nga soog koy mën a joxe mais mais nag aussi le pharmacien quand même. un rapport bi mu am avec le médicament vraiment je parle du pharmacien. il mm-hmm. y a yi nga xam ne euh, du ko def. parce que il engage aussi sa vie. il il s'expose. il s'expose et là aussi Pape Djibril a parfaitement raison et day indi trois même trois responsabilités. civile, pénale et disciplinaire. C'est-à-dire que dans certains pays vraiment où c'est très sérieux, mais sa diplôme dañ koy nangu. wala même mën nga si dem ba kaso wala interdiction. Sénégal sax am na. mais duñ ko publier en général parce que aussi l'ordre bu defee yu mel noonu euh, pharmacien bi moo koy xam ak waa ordre ça hmm. aussi si métier bi noonu la demee. seen biir bon je suis hmm. que dégg naa semaine passée ñu génne def test antigénique yi ngay wax. waaw mais kooku si euh, en tout cas ñun au niveau du syndicat du information bu officielle. bu hmm. ñu jot. en dégguñu du du ministère de la santé. du direction de la pharmacie du direction des laboratoires fi mu toll nii di wax ak yéen autorisé ñu benn pharmacie mu def test. kon yéen doo def test. Hmm, ku ko def tamit yaa koy def. sa coobare bopp sa coobare hmm. mais amoo ci benn autorisation. amul benn test ji note bu génn ni pharmacien yi def leen test en pour Covid amul. moo tax man boo ko déggee sax dafay jaaxal ay euh, woote nañu suñu biir ba xam euh, à ce jour xamaguma kenn ku koy def. franchement xëy na nag am na. fake news la. bon en tout cas xool nañu suñu biir mais xaw ma kenn ku mais c'est pas fait ah, c'est pas en fait ça se fait dans d'autres pays. ça se fait dans d'autres pays. mais fii entériné non non vous ba ba récemment même les laboratoires privés nga xam ne ñoom seen métier mooy def analyse autorisé wuñ leen woon à faire des tests ak les officiers jusqu'à li may wax ni amul matul passé deux semaines. la décharge de laboratoire aujourd'hui les test presque kan moo koy def à part les tests euh, rapides yi nga xam ne secteur privé bi moo koy public bi du moins ñoom ñoo koy def. y' a que l'IRSF Institut Pasteur ñooy def test yi pratiquement. donc amul benn pharmacie aujourd'hui bu war a def test. Covid mais est ce que envisageable est ce que waajal ngeen seen bopp. pour def ngir mën ko def est ce que am ngeen le cadre déjà qu'il faut. exactement est ce ne risquez pas aussi yu xamante ni aussi dans les quartiers ça peut être compliqué dafa am lu ñu sax lu am solo. mooy lépp dañ ko war a aussi préparer. organiser ko mhm. suñ ko organiser comme il se doit pharmacien xam son rôle. dans le dispositif qui est mis en place mën nañ ko. parce que man damay romb léegi ay pharmacie mais ñu mel ni ay boulangerie ci weeru koor. Ah. ni ñuy raay boulangerie weeru koor. affluence fil boobu moom mooy am. Mm-hmm. xam nga dafa am foofu deux choses yu koy expliquer wala plusieurs y a l'affluence mais dafa am distanciation bu ñu bëgg di respecter ba tax kenn mooy dugg parfois mm-hmm. aussi dañu nekk en sous-effectif et là aussi si ñun la. parce que mënuma am pharmacie wax damay ubbi 24 heures benn fenêtre bàyyi fa benn nit. Mm-hmm. ñun dañ koy jooy toujours. parce que ki ñëw feebar. waaw nga weer ko ci naaj wi. mais c'est ça. Mm-hmm. surtout xale yi ñu ngi weer nit ci naaj bi ñuy rang. mais ça aussi eh, dafa même le problème de garde day posé wu à à une exception parce que tey ñaata pharmacie ñooy ubbi. kii ci guddi nu mu tudd. Mm. Euh, guddi gi. man ki nga wax da nga koy dund maa ngi kër góor gi. mais du ma tudd pharmacie bi mais en face kii mais chaque guddi dañ koy ram. moo fay mooy wàcc. benn 3 def naa ci benn pharmacie de garde keroog guddi 30 minutes def naa ko ci pharmacie. bi ordre beeg wala mais loolu ko réglé mënugu ko euh, amul les moyens pour réglé ko xam nga lu tax dafa am benn loi <coughs> bi organiser la garde su ma nee leen la loi cette loi la date de 1961 Valdiodio Ndiaye moo ko signé woon Ah, boobu ba léegi <laughs> ñu ngi wax naan nañ koy yeesal nañ koy yeesal nañ ko yeesal def nañu projet jox ko ki ñu ko war a jox mais le problème du pays bi mooy mooy li ñuy li ñuy wax tous les jours doo sax comprendre lu tax parce que syndicat bi ak ordre bi réfléchir noonu sur un projet de loi projet d'arrêté non de décret et projet d'arrêté d'application joxe ko mais li ci des mooy jox ko ki ñu ko war a jox mu jaar assemblée mu génn mm-hmm. mais 2018 laay wax ba léegi ñu ngi xaar loolu docteur on sait que vous êtes exposé comme. Mm. Mm. ñu yëngatu ci wàll kër doctor yëpp est-ce que gars yi ngi jël matukaay Covid bi aussi mbaa sonalut euh, gars yi. waa am na quand même euh, pharmacien yu ci yu ci am feebar bi am na sax ñu si ñàkk seen bakkan. Mm. am na aussi ay collaborateur effectivement yu ci am mais pour wax dëgg ba wax dëgg rek du ñëpp ñooy jël toutes les mesures xam nga erreur bi ñuy def souvent mooy dañ koy yamal ci sol masque ak distanciation. Mm-hmm. mais feebar bi. lii mooy problème bi laal dara indi ko sa bët sa bakkan wala sa gémmiñ mhm. mu wàll la c'est-à-dire tant que ñu ngi fàtte ne mhm. loxo mooy laal surface mhm. wala laal nit wala à part bien sûr tichol yu beeg postillon yi indi feebar bi et souvent loolu moo ñu manqué désinfection yi porte porte yi et cetera et cetera même toute pharmacie ko aussi yooyu yëpp c'est des éléments et pourtant on a fait des notes on les a partagés mais bon mënoo lu dul wax sama gars yi lii mooy yoon. Mhm. léegi nag moi je pense ah bon c'est c'est difficile de le dire mais souvent contrôle bi ak peut-être de sanctions. des sanctions mooy manqué dans ce pays de sorte que souvent dañuy fàtte. def les choses comme il se doit duñ ko laaj rek. ok waaw kañ importer garab wala yenn garab yi. ah très bonne question kañ lañ koy bàyyi mooy bis bu Sénégal décidé am plan de développement de l'industrie mhm. plan laa wax. parce que man mii di wax ak yéen maa ngi travailler sur un projet d'industrie pharmaceutique depuis 2015 ñu gis juróomi ministre ku nekk ni ñu seen projet bi c'est intéressant et cetera xam lu ñu wax dinañ ko jox président alors que. c'est le mm-hmm. problème président ñoom la mm-hmm. xëy na temps bi bariwul damay joxe juste mm-hmm. deux exemples. jar na ko kay jar na ko kay. tey jii dëkk yi développé yépp seen industrie fi ñu jëkk basé wu mooy fexe ba l'environnement soit propice environnement propice mooy lan. su fekkee ne tey jii am naa ñetti industrie Sénégal yu mën defar azithromycine mu doy sénégalais yi dootuma importer. mais Sénégal du ko def. du ko def oui. jusqu'à présent et exemple type bi ñu am mooy euh, société bii defar soluté yi. Mm-hmm. Mm-hmm. soluté boobu toog na sept ans à huit ans entre bi bi muy am financement ba bi muy pare. Mm-hmm. tey garab yi génn ci société boobu. mu ngi jar huit cent trente-trois malade bi koy jënd ci à pharmacie. te boo importé Mali bi jënd ko moins cher bu excès Sénégal gën a yomb est-ce que c'est pas un problème mooy la les coûts de production au Sénégal sont extrêmement élevés ñu jël rek fii groupe Futurs Médias ñaar bu facture courant ñëwee rek ñaata la. Hmm. waxtuma la ak industrie hmm. pharmaceutique hmm. l'énergie coûte cher l'énergie coûte cher. Euh, ak les taxes. Mm-hmm. et qui sont à l'importation. Mm-hmm. Euh, industrie pharmaceutique mooy secteur bu am benn paradoxe. Mm-hmm. mooy lan su may importer les objets de conditionnement les intrants yi jëm ci defar garab bi. dama ciy fay ay taxes. mais produit final bi amul TVA. ça veut dire quoi dans tout pays société boobu état da koy defal crédit de TVA maanaam TVA du waroo ko fay. man miy defar producteur waruma fay TVA. c'est au bout de la chaîne lañ ko war a collecter. reverser ko à l'État bon selon des conditions bien précises mais tey TVA dafa nekk charge pour ces industries la lan laa bëgg wax foofu mooy conditions yi yu permettre à l'industrie pharmaceutique Sénégal de se développer moo amul ba tax na ku investir tëj dem mais Sénégal ñu ñoo fi jiitu en Afrique amoon nañ fi avant muy tudd Pfizer mm. Mm. ak san ak Sanofi déedéet Médis sax dafa jënd mm-hmm. dafa jënd Sanofi ay tunisiens ñoo Sanofi di dem ñu jënd ko. Mm. avant Sanofi defe naa amoon na euh, beneen tour allemand et cetera mais lu war a tax tey Pfizer tëj usine am dem Sanofi tëj usine dem Médis bi jën doon jëndoon Sanofi dawal ñetti at def ñetti at perte tëj. bañ na day tijji ba day tijjiwul. voilà mais même foofu approche bi pose problème. Mm. parce que dafa dañ ko defe approche wu xaalis rek. on va mettre 5 milliards on va mettre 3 milliards Médis dem. Mm. alors que mënul dem. le produit qui sort de l'usine est cher mhm. le marché n'est pas régulé et cetera a pas de protection loolu moo tax Sénégal du gaaw a defar ses propres médicaments merci beaucoup jërëjëf di préciser euh, ne na deux cent quarante euh, agents yu fay liggéey ci ñoom am na quatre-vingts yoo xam directeur bi ñu ngi ko doon xaar mhm. tey mu waxtaan ak ñu fay liggéey comme ni ko docteur waxee ci diggante Sénégal Cameroun mhm. ak Côte d'Ivoire en fait dañu décider et loolu yëpp nga may ma rek xam lan moo ko indi rapidement rapidement mooy mooy mooy système de régulation xam nga mënu am pays nga bàyyi garab bu ñëw dugg ñiy defar garab yu baax Sanofi bu ñu la waxee ñaata nit la amoon Sénégal di travailler l'exemple premier exemple bi ma la jox mooy le Doliprane voilà un laboratoire qui di man Doliprane age bu nekk dama koy defal dosage am am risque de presque de de de surdosage xale bi bu amee tant de kilos 100 milligrammes lay jël ma defar sachet 100 milligrammes mais tey nga jël benn mbokk bon ku jóge Asie duma tudd kenn mu defaral la benn sirop bu mag def ci benn kuddu bu mag yam si xaleel ak mag ak ñëpp benn kuddu et aujourd'hui on fait hmm. tout pour que c'est ñi nga xam ne ils font l'effort def qualité jóge fi. indien yi la. bon indien yi chinois yi hmm. et c'est un nivellement. par le bas. Mhm. on a pris cette option là et c'est malheureux. jërëjëf merci beaucoup docteur Assane Diop euh, yegsi nañu ci les dix minutes de euh, de docteur euh, El Hadj Mamadou Ndiaye dafa mel ne naataangoo médecin wam moo cof tuuti ci ay simileem docteur El Hadj Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la mhm. prévention nekk fële porte-parole ministère de la santé xam ngeen ni weer yu mujj yi moom lañ gis ci mbas mi ak li nga xam ne itam moom mooy taxawaayam docteur. docteur Mamadou Ndiaye xam naa ñu ngi koy làmb fii ak ay seconde ñu jot ko Pape Djibril xam nga léegi dañ ko dugal ci biir programme bi donc saa ñu jeexal dañuy def taxaw seetlu ak moom mu wax ñu euh, pas point du jour parce que point du jour ci kanam mais fu situation bi toll moom nag bi mu talee daam tàmbali ba léegi chaque jour buy tàggoo li muy wax yaakaar na dëggal na ko euh, wàññeekuwul benn yoon wàññeekuwul benn yoon bi mu ñu ko waxee jour boobu je crois qu'après am nañu 1700 cas chérif bu ko jegewul mmh. te boobu ñu ngi jóge ci euh, bon accès accès gu ñu woon ci mille yi donc euh, décès yi gis nañu ne bëri na euh, docteur El Hadji Mamadou Ndiaye euh, moom la ñuy tenté jot ko su ko defee ñu am ay laaj yuñ ko laaj ci tey ak taxawaay bi Chérif mu mm-hmm. def nag liggéey bu am solo docteur c'est dommage tey